maa ngi tudd Moussa Camara loo 11 virgule 5 ngeen bi génne. voilà ñu bari ñu ngi découragé Sénégal toog na ci kanamu Angleterre tey nan nga jàngatee défaite Sénégal. waaw xam naa ne tey défaite moo ñëw donc voilà xar kanam bu ñu doon gis Sénégal donc gisuñu ko par rapport ak yeneen match yi passé donc bien vrai que contre euh, Hollande door nañu 2-0 mais quand ñu indi nañu benn football boo xam ne ñëpp ko apprécié ñëpp a kontaan ci. mais yaakaar naa tey moom donc dañoo joué ay bricaillons donc Sénégal bu ñu doon gis d'habitude mu foofu benn brique boo xam ne compact homogène tey gisuñu ko donc xëy na peut-être tamit voilà ci biir euh, tactique de jeu la wala conseil la ñu kenn xam ko donc en tout cas euh, am na benn absence boo xam ne peut-être euh, manqué nañu peut il mooy mu sax Sadio Mané manqué nañu ba à part Sadio tamit Gana Gueye gis nañ ko dafa am plus sur plus de carton fubalul day xëy na peut tamit loolu moo indi remaniement de tactique bi donc Sénégal am loo xam ne défaite la mais quand même ba léegi ñu ndax du ñu voté le 6 février passé donc Sénégal benn peuple la peuple boo xam ne dafa du ingrat donc du voté démbam donc voilà nañu góorgóorlu tamit Sénégal ñu jéem a rectifier seen faay ngir mën a dem ci kanam en tout cas am nañu benn coupe d'Afrique bu ñu war a joué euh, en 2023 donc incha allah nañu góorgóorlu comme daal lii passé na passé na donc ñun supporters yi tamit ba léegi découragé wuñu donc supporters yi ñu ngi leen di euh, joueurs yi ñu ngi di gërëm donc ils ont mouillé le maillot ils ont représenté le Sénégal au mondial donc vraiment nous sommes fiers de nos lions et le Sénégal jusqu'au bout. naka nga tudd. man la université nga waaw premier mi yi gaynde yi ñu ngi joxe ñu ngi def lu ñu mun xëy na équipe yi ñoo tollowul doole anglais yi. ñoo ñu dàkk football ñoo gën a baax équipe te ñun tamit am na lu ñu manqué lool te gars yi moom vraiment ay jàmbaar lañu ñu ngi joxe boo seetee position bi euh, euh, Angleterre mu ngi ci 63 position Sénégal mu ngi ci 32 kon 14 euh, kii moo moo nekk foofu ñu ngi def effort daal ñu ngi def effort tamit ba léegi nañ dundee yaakaar match 90 minutes la 45 minutes yi jàll na des na 45 minutes yàlla mun nañ jàppale ñu égaliser parce que gars yi football bu ñuy joué nii mun nañu may dara buñ si yokkee dara rek mun nañu amaat dara incha allah yàlla nañu yàlla may ndam. non man wallahi azim loolu laa doon wax léegi sama collègue yi ma ne ko man tant que arbitre sifflé wul ni toog naa parce que ay gaynde lañu ay jàmbaar lañu dañuy dem ba mu jeex incha allah man du ma découragé te tamit ne sénégalais yëpp ñaan ñun du ñu bàyyi ñaan incha allah jaajëf. waaw euh, première mi bi donc dem nañ ba 34e minute 34e minute tout était ok ah donc mais c'est que ñun dañuy dañuy dem si kaw ba pare di libérer ay espace euh, espace yooyu ñuy libéré nag te le jeu anglais est rapide donc ñoom ci euh, kii yooyu ci la ñu sàcce dugal ñu donc te yaakaar naa bu ñu dellu sey deuxième mi bu ñu ratifié milieu terrain bi génne Crépin indi ñu ok Pape Gueye ak Pape Matar Sarr bon ñu xaw a ñëw tuuti ça va ñu ça va beaucoup nous arranger donc man gëm naa ko ba léegi que ni mën nañu jël si jëliwaat équipe anglaise bi bu fekkee am nañu euh, volonté bi te équipe bi gis naa ko mi ngi fi. parce que euh, boo gisee Sénégal équipe bu baax la yor équipe bu baax la yor donc bii nag léeg-léeg ay petit erreur lay ñëw espace yi bu ñu ko jéemee fatt di contrôler suñu ginnaaw gi bu baax bu ñuy parce que tam la meilleure euh, manière de défendre c'est d'attaquer loolu lañ def mais bi ko defee tam espace yi moo xaw a bari donc le jeu anglais rapide il faut que ñu jéem a euh, am na ci deuxième bii bi mënoon nañu def Sabaly mënoon na def faute parce que foofu noonu moo gënoon que ngay jël deuxième bi nga jël carton moo gënoon ngay jël deuxième bi mais on va rectifier le tir après deuxième mi-temps bi ñu ñëw nekk ci je dem à laso de à l'assaut des anglaises c'est bien possible waaw xam nga ñun moom ay nekkuñu ay ay ay ay ay supporters wala ay kii ñun ay amateurs de foot lañ te gëm nañ ni Sénégal war na mën a jëliwaat euh, Eh, score bi ba qualifié pourquoi pas sax ñu dem ba jëli leen ñu dem ak ñoom tiro bi gagné leen c'est bien possible parce que ñun dinañ ñëw ak suñuy ambition yi bees eh, c'est de revenir à l'escore mais kay tam paramètre te en général gis naa ne ñun suñu équipe bon ba léegi potentialité pour ñu jëli ko mi ngi fi man gëm naa qualification bi ba léegi c'est bien possible man gëm naa ko

Makote. de Bobo Nacho.